alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax parce que toog nañ ñaari at def ñu gàmm ren nag yàlla dogal ñu def gàmm dañ koy sant yàlla bu baax ànd si mbégte ak contentement bu baax a baax. donc comme ñun daayira la ñu rek passé na comme d'habitude la changé wul benn yoon yoon bi nag xaw na difficile ñun. ba yax mboora bi lañ jaar macha allah yoon boobu gaaw na te méttiwul daal macha allah waa dal moom macha allah gis nañ fa ay teet yu bees ak ñi fi nekkoon ambiance bi yëpp ñu ngi si biir daal macha allah daal non non non instant bi moom déplacement bi dafa yomb parce que tali yi daanaka yëpp lañ defaraat yooyu amul ndox amul dara macha allah. ah ñi ñëw nag ma wax daw ndànk dal ndànk daw bu baax dal bu baax ñu ñëw si jàmm fekk fi jàmm egg demaat ci jàmm incha allah parce que dëkk jàmm la dañuy indi jàmm fekk fi jàmm waat jàmm. ñaan yàlla lépp lu ñu fi ñaan yàlla nangul ñu ko si barke nabi Moustapha incha allah ñu jàmm ñu si jàmm ak salaam macha allah. sant yàlla alhamdulilah. suwaala bonjour. waaw xanaa si bërëbu si bërëbu tedd bi di bërëbu Cheikh rek. non man maa ngi bàyyi ko Mauritanie. macha allah sant yàlla amul benn jafe-jafe alhamdulilah macha allah. xanaa ñu gën a góorgóorlu rek. gën fonk mbir mi xam ni ay kilifa ñoo ñu fi tënk ñaan yàlla ñu gën ñu fee tënk rek. ku nekk mottali sa yéene ak sa bëgg-bëgg ak sa pas-pas ci barke Seydina Muhammad ko trop yaakamtu woon nañ ko namoon la macha allah alhamdulilah ñëw si jàmm nañ dem ak jàmm wallaay gàmm gi namoon nañ ko trop sax billaay sunu bu tooge toogee ñaari at gàmmunu loolu métti nañ trop waaye dafa fekk rek jaam ak pexe ak yàlla ak dogalam ñun gàmm gi macha neex na trop neex boo xamante dafa neex ba dégg maa ngi dénk sama mbokk si ñëw fii ni ñu def dowal naag ñëw ci jàmm salaam dellu si jàmm ak salaam incha allahu rabbi gàmm gi day gën a neex gën a ala daamun incha allahu rabbi incha allah gis fi benn jafe-jafe macha allah rabbi kenn dérangé nu si dara du policier du kenn macha allah nu ngi dem nu nu neexee soo nu gisee sax dañuy wax du nu étranger te nu étranger loonu mërtani lu nu jóge amuñu sax papier Sénégal billaay ñëw noonu fi macha allah si yoon bi amuñu benn problème alhamdulilah